hadis bi abu hurairah moko net yonent bi neena won banu israel dal ya ca massa doon gone lol, lol ak ñu ci wara mëna wax ba nopi yalla wax lo leen ñett lañu kenn ki moy hisa ko yalla netalé ci alquran bu ko yaayam dooru juf yonent bi net netali ku ñu wax juroju ku ñu wax juroju daa bokkoon ci banu israel di jaamu te yalla bu maga mak mag nak ben jaamu kay bo xam ci lay beru di jaamu yalla léeg yaayam nam ko nak ñew diko ko bëgg a gisee ak moom am benn yoon yaay ñew diko wo mu ne sa borom sama yaay ngop ta ma ngi julli tax dama wara bay julli gi wuyu ko am dama wara wé ci julli gi mu ci dogu kon ci bay yaayam te wé ci julli ga ci ëllëg sa yaayam ñëwaataat mu yoonu ñaarel fekk muy julli mom jëye ju yaay ji di ndax nam ko mu ne sa borom sama yaay ñewat na te maa ngi julli daa koy wuyu am day wéy ci julli gi waaye daa mujj doogu rek ci wéy ci julli ga yoon ñetteel ba it yaay ji ñëwaatati ne ko juree ju di ko woo ndax nam mu ko mu ne saa borom sama yaay ñëw na de te maa ngi julli ndax day bàyyi julli gi wuyu ko am day wéy ci julli gi mu fa doogu rek ci wéy ci julli ga yett na xam nga daa metti yaay ji ñaan ko yàlla ne saa sama doom ji balaa faatu na ko jotee leeg njaalookat yi ñi def lu bon jubluwul sax mooy ñoom waaye na ci jële rek loo ca naqari dañ ko ci taqal ba on ca lu ko naqari ñaan nga nangu banu Israël toogoon di waxtaane juréy ju ak nim farloo ci jaamu yàlla am benn jigéen boo xam ne dafa rafet lool waaye nag mooy kotu yàlla la am njaalookat la mu ne leen mën naa ko yàqal de bu ngeen bëggee ma yàqal la leen ko de mën naa ko yàqal jaamu yàlla gi daal fexe ba àgg ci juréy ju bëgg koo yàqal mënulu ko dara jéem na jéem daal mënulu ko dara mu daal di fekk benn waay boo xam ne ak sàmmkat la bu sàmmee ba ci ngoon rek mu dem fattu ca juré ju foofee ci jaamukaay ba mu daal di woo sàmm boobee mu joteeg moom moom daal di woo sàmm boobee mu joteeg moom moom jigéen ji naka mu joteeg moom njaaloo mu ëmbee ca naka ma am doom rek ne juré joo ko juf mel ni daal daa wane ne yàqal naa juré ju njaaloo naa man ba ëmb ba am doom nit ñi daal di gaawantu jéemu ñëw xam ba xam wax na dëggam déet daal di song rek fa jëlee yuy jaamoo yàlla yàqate bérébam boobu nga xam ne fa lay jaamoo yàlla màbbate ko dammate ko tàmbali ko dóor moom ci boppam mu ne leen waaw lu xew lii lu ko waral ñu ne ko njaalookat bu jigéen bi yaa njaaloog moom ba mu am doom nee na yaa jur doom ja mu ne leen ana gone ga ana doom jëm jur ñu andi ko mu ne may leen ma julli naka mu julli nag ba sëlmal ne duut baaraam ba ca biiru gone liir boobee ne ko gone gi kuy sa baay mu ne diw sàmmkat bee mooy sama baay <laughs> mbooloo mi daal di ko nag daal ci juróoy ju di ko fóon ak raayoo di barkeelu ci moom xam ne rek ku dëggal la ku yàlla may la ñu ne ko fi nga doon jaamoo yàlla tan yàq ko dañ ko bëgg tabax ak wurus mu ne leen déedéet nam doone won tan rek wat leen ko doon ak ab kay doon tan rek nam melon doyna ni def dafa am gone go xamne ne yaayam da ko woron diko nampal ben way waay fa war daaba ju baakha baax waji ci bopam rafet lol ami waajtaay wu rafet rafet yaay ji ne yalla nga def sama doom ji namp mu melne ne war ca daaba doom ji ci boppam moo yàbb ween wa xool ki yaayam di wax naa yàlla na mel ne moom moom gone gi xam nga mi ngi namp doom kat moom ci boppam moo yàbb ween wa xool waaja ne yàlla yàlla boobu ma dafa mel ne moom yàlla kii daal bul ma def mukk mu mel ne moom daal delluwaat nag tàmbaliwaat nàmpaat bi yonent bi bi yonent bi nett li nee na yonent bi daa seex baaraamu sànnikaay bi di muucu baram di wane ni noonu la doon def yeen wa non la xale bi doon def yeen wa ñu delu rek baat faak ben xale bu jigen bo xam dañ koy door nako ko da nga jalo da nga sacc mom nak moom xale bu jigen mooy waxna hasbi allah wa ni'mal wakeel yaay ji dal di waxati ne sa borom sama doom ji day bu melni te ay mo mel jigen je jee doom jekki bàyyiwaat nàmp ga xol nak kiyam na yalla bisa saa doom mel ne moom ne ko bu xool ne saa borom day yalla nak ma may mel ne kee foofee nag na fa la yaay ji waxantee dom bi ne ko waaw nan waxtaan nit ku rafet rafet melo neex a gis war ci daaba ji rafet dafay rom mu ne yàlla saa doom ji def ko melni ke yow nga ne sa borom yalla bo melni ke kee ñu rombaat xale bu jigéen diko door dóor naa ko njaalo da nga sacc ma ñaan yàlla ne ko yàlla saa doom jikkat bu mel neke kee yow nga ne yàlla def ma mel ne kee loolu ko waral doom joo xamte moom wér ne ko góor googee ngay wax day ko ñeme yàlla day borom doole ci ñeme yàlla dong ma xam ne du amuk muñ mukk du yàgg yàgg du amuk mucc moo tax ma ne woon saa borom yàlla bu ma mel ne moom jigéen jee ngay wax nag ne yàlla bu ma mel ne moom daa wax ne mën naa mel ne moom dama wóor ne leñu koy waxal ci njaalo sacc defu ci lenn te lam wax na hasbi allah wa ni'mal wakil wana ne ku gëm yalla ku rafetu gëm la pas pas wala motax mu ne sa borom yalla na melni koke nenañu dañu dégg ci hadith bi ni ñu wara topé yaari wajur ak kula ci wo dal di gaaw muy jiko ci sax da fek nga nek ci lu baaxa baax waye nak dañ koy tekkale bu nekkoon jullik farata moom bu ko waajuram wooyee du dagg julli ga bu dee naafile nag mu dagg ba tey gis nañ ñaanu waajur ni ko yàlla nangoo ca doom ja nga xam ne kon waajur lu mere mere doomam nay moytu di ko ñaanal aw ay ndax ay wa mën naa dal wëlbatiku di ko réccu batay tey dégg nañ ci hadis bi ne ku deggu digganteem ak boromam lu na reuy reuy du ko fàbbi du ko wañi dara batay tey nañ ci hadis bi ne bir mu am solo mu ne so bëggee yalla defal la ci tawfiq man nga ko jaare ci julli ndax ju li mbir mi reuy reuy jaxu ci jaxalo ci dane bàyyi leen ma ma julli naka mu julli dal di ñaan dal dem ba ca liir ba mu cuut ko baaraamam baa nga ne dëpp ko baaraamam ne ko kuy sa bàyyi kooku ab